Oh. bi ku ne dégg nga sëriñ Cheikh Baye Ndiaye borom solution xale yi ñoo ko naan the ambassadeur peace and love guide spirituel consultant international boo bëggee bayre rek ak xaalis ak ubbeeku ci moom ngay dem moytu njabar maanaam sorcellerie ci moom la boo bëggee cat romb la cat seexlu la ci moom ngay dem mauvaise làng maanaam làmmiñ nga xam ne nit ñi seen làmmiñ yi kom lañ set ci sa kaw daa foofu ngay dem am na it yeneen i xam-xam yoo xam ne da ko jàngee bitim réew dem na ci dëkku Afrique yëpp jàngi xam Singapour nak ba mu fa démé ci la mën lo xam ni kenn mënu ko ci aduna moom moy sëriñu am d'affaires yi directeur école coranique la sociologue la en islam Cheikh Baye Ndiaye borom solution ci aqiqa yalla ak yonent bi dong lay dox xol ko ci Facebook wala ci Instagram téléphone am WhatsApp li la 77 972 00 00 77 972 00 00 daw leen gaaw seeti ko borom solution jëlal 77 972 00 00 ci Serigne Cheikh Baye Ndiaye réew mi yëpp moom la ñuy wër politiciens yi nga leen di gis ñuy coow yëpp moom la ñuy wër de. yéen waa Sénégal ak yéen ñi bàyyi ko bitim réew bërëbu noppalukaay bu bakkane am na ca tubaab jalaaw nekk ci commune bu yéen ñu dippee ko Max Royal résidence Max Royal di bërëb bu bakkane ànd ak piscine bu taaru set wecci ay suite familiale climatisée yu yaatu ay chambre climatisée ay salon américain yu ànd ak cuisine yu mucc ayib bon yéen ñi bàyyi ko bitim di wàcc ci aéroport international Blaise Diagne di AIBD mën ngeen a dallu résidence Max ndax digentem ak aéroport bi danaka fukki kilomètre Yeksifa. la lol. fa 77 263 43 22 wala 77 402 09 06 wala 78 575 88 64 wala nga téléphone fixe 33 857 15 37 résidence Max Royal di bërëb te andak. kaaraange gu mat sëkk. ngoone man de daa ki delloo sax koor gi tóor gi dafa métti. ndax euh, gis nga li ma doon li ma doon waxtaanee ak yow fee ci guddi. waaw. loolu laa bëgg ñu concrétiser ko tey. jii tey jii amul xaar. téeméeri yow téeméeri nga di. ma li ma bëgg maa ko xam damaa bëgg nga jóg léegi dem fa. na ah déet may ma ma nak may ma ma ba pare amul loolu parce que man dama xam ñee so fa démé légui système bi ma bëgg ñu teg ko bu ñu tegee système boobu boo moywul dañ lay xaarloo ndogu te bu la xaar lo wé ñu buñ ndogo mëna la may ah boobu dé baax na waaw léegi nag man limu bëgg mom moy buñ ndogo buñ la proposer mu ñu may la ndogu nga nangu boko nangu ah wéru koor mom ku ci may jabar xanaa do ko bàyyi muy fanaan da nga jox borom mu yobbu ko su ko défé su su ñëwé bala noo xëdd moom mën koo jël waaye yow mii yow yow mais àndal ak sa ko nooy bëgg ñu may la tey mu sëy tey nga jël ko tey. loolu ñu ciy xaar loolu yëpp la ko gal yow daal baal ñu dem ba noppi rek xamaguma noo fay fekk. gis nga gis nga gis nga gis nga nag gis nga nag nga am xel kenn du ci sotti soof xel dong laa lay jox dañuy yegg ci kaw léegi. waaw ma jox la xaalis enveloppe nga def sa poche ba gànnaayoo. boo demee jël juróom fukki junni ko duut yaay ji nuyoo. nuyoo kese juróom deux cent cinquante. donc jërë bàyyi ba nga ne ko duut de cent cinquante mille. mu eh bu eh, waxagum dara nag nuyoo da ngay ba pare. daan nañ leen nag saa waa jaama yónni woon pour pour maanaam ngeen may ko soxna. dañ la koy may xam naa bàyyam xoolal kilifa la baat ba ca kër ga moo ko moom lu mu wax loolay am. lu mu wax loolu noonu kay force danaan ma may. léegi nag boo defee noonu. danañ la ni xaaral bu waxaaree ndogu bu la mayee bu ko fa ba na ñëw bana bala nuy xëdd ma mën koo jël waa léegi bu nee ma xaaral ndogu ñu may la léegi waru gari nu may def dañ yéeg ci kaw ma jox la enveloppe nga téye bu la nee dañ may sa téléphone bi amul crédit nga ni ma duut appel ni ma nee naan dañ may may ma yónnee la ñeenti million nga jox leen Mamadou Gueye lii laa bëgg te man yaay sama waay jëri ngoone takk nga ba mel ni naanaa de engagé nga ko de yaa ma ni sa maam nii la daan def yaa ma ko wax ah waaw waaw man daal première pas laay def rek. ak waaw comme sama maam sax yàlla ma sëri sa jéy sa maam moom mooy fukk borom fukki jabar ak ñaar juróom benn goro loolu moom dëgg la. waaye c'est c'est c'est c'est autant. waaw man sëtam nag bu ma defee loolu wàcc na demal nu may la ko timis mu ñëw ci kër gi julli gee ma jiite ko naafi la jël ko balaa noo xëdd. ndey sa ku la ndax ma sëri sa jéy fànn benn la sukkaari sa jéy kon laa tax yërib kur kur ñu ne ko yërib. waxaatal loolu. ma ne ndey sakku la ndax. Hmm. ma sëri sa jëy Fatim benn ak lan suk ali saak sa jëy koor naa tax ngirib korkor ñu ne ko yirim. gis nga yirim kooku ñu naan ko yirim moom laa ko naan yirim ñu daaneel noo dëgg ma wooraat. daay daay da daa kuy door a man koy saaga waaye koy màtt dëgg li ma mën yëpp xanaa xam ne wati da bi lépp ci jaan la bokk waaye dara yëmut ak dangar. yàlla xam na loolu. jar na ko. ko jëri ko ne xaalis baa ngi ni ma la ko waxee na ko defee noonu soobee yàlla bi xam naa ko paa bu paa bu alpaa almaa la bon muy moom imaam nee ko waaw jumaa ji buñ ko seetaan muy daanu ma ne ci dëkk bi wax naa ba sonn ci sama der wax naa ko ba sonn tàmm nañ xaalis bu ma leen jox nag ñu seet neneen ñu ngi ko def. ah dëgg bopp neneen lii. waaw nooree ni nee na. Mhm. sooroor bu weng boobu nañ ko daaneel def ko ci. soobee yàlla. robinet yàqu ca jumaa jaak yooyu maanaam. jumaa ja laa bëggul gis dara lu ca sikk. dama ne ci dëkk mokkee sax mokkee sax dinaa ko wax. te ko nooree ne ne bi. wuy ma changé mokkee di jàkk lii nii yow amoo ci dara. Ah. lépp dem ca jàkk ca jumaa. soobee yi koñ bi. jumaa ngi seen sooroor ah rafet na juma ji ñu koy bàyyi noonu muy daal. dama kontaan damaa yéeg dégg la ngay wax juma jumaaw ci sóoro. kontaan na xam nga xam nga xam nga chéri. avlo ah, budis bi yëpp pour juma ji la. gis nga jigéen. jigen jëkkëram moy sagam. dëgg la te yow yaay génn ci mbéd mi fi di dox. ñu naan non man yàgg nga ma sagal bo noppé sax sagal ma. jamono bun us bun ofaan nga ne hein xam nga ni juma ji bama ko défaré bama rafet hein xam nga yoy sa sak lay doon te nak xolal tay dafa melni météo hmm. météo dañ day taw ah loolu la wax de nak asaman sang ni tambalé na xit taw bu reey la wara taw tay jii waaye de yiw dugal ci bir taal ciuray defal may ci mom bax ma ngi waaye yiw bi nga def ni no yalla rek la koy fay yalla nako yalla ciuray kessa ngay wax yalla nako yalla bolé yiw gi yalla nako yalla ciuray kessa ngay wax ba nga dugg kontaan Yıldırmak o. Yıldırmak değil mi? Oyuncu. Mbak. Mbak yow yow yàgg nga di la doon def. la doon def. dama doon am yenn corvée yu ma doon def rek. mbay ok xarik ah, waaw yow dafa am lu ñu waxtaane woon man ak yow waaw ñu jëm ci mbirum mbirum ñaareel googu ñu doon waxtaane moom laa bëggoon ñu waxtaan ci parce que dama woo mbuub waaw hmm. jox naa ko xaalis ba yónni naa ko pour mu dem ca kër ga waxtaane nuyoo du deug deug la kay te damay ragal mbu bu demé eh. mën nañ ko may de ndax borom kër ga xamna ko ab alma la mom kërëm batam ben la mom moko yor lu mu fa wax moy am lu mu wax do deug la te xamna ni ha njot na dal ni sa way mën na dem lu may ko mo taxone ma bëgg nga ni ciow dem na fe yow nga géré fi dem wax ak soxna si xamal ko ni ko may nañ ma jabar match bi tass deug la noonu nga bëgg ah ma ñaan de nga tay ndax lu ni tay té nak ah dag may déglu rek. Ah, d'accord baax na mbiru jabar kën du ko sor ko man mag la gis na ci façon bu ne nit dig na la mayu la te lepp solo moy marché bi day soog a démarrer coup d'envoi bi sifflé nañu ko ñu ngi ci football bi ndànk-ndànk la gis nga anecdote laa lay wax. ci wàll anecdote anecdote ku ñu naan Iba Dieye Babacar Dieye astafurlaa hmm. ba muy dem quartier la annoncé woon na dañ koy may jabar annoncé la def de hmm. dem na quartier ba ñëw te may ñu ko mbiri jabar du ngénte bu dee ngénte sañ ngaa yëgle wàllu jabar cat da cee gaaw am na ñoo xëy dégg nga maam jamonoy internace internace internace bu laay wàdd bi ba muy jël réew mi alternance lan annoncé woon ne may nan ma jabar ba tey ba sànq Ablaye Wade wàcc na Sonko ngóor si falu nu mu tudd sax Macky mi tamayaguñ leen jabar cat da ciy gaaw a dugg mbir mi tey la il faut nga dégg dégg nga maam mayu nañ la nga soog a yëgale waaye fekk déggoo mayu nañ la bul yëgale ndax cat man na cee dugg lii da laa lay conseil ndax mag laa nag man mii di wax ak yow soxna si ma njëkk a am yëgle naa ko toj dëkk bi yëgle yëgle yëgle dem ban na dimanche la nu nu fo gàntal ma billahi wallahi yàlla rek laay waxal ba mu am ñetti at ñu soog maa may defe nga ni loolu dëgg la dëgg la ma muñ ko kon muñal muñal dama la ko marché bi leer na ba pare. il faut déggee mbub annoncé ne may nañu la rek ma ma ma yëg ma yëgle. nga def ko maro <laughs> billahi wallahi wallaay foo ko déggee ma dugg dëkk bi. mat naa ci réew. nii nga may gisee. Hmm. man naa lu ne. la dëggan birim biram gën ko du bii nga moo jur saa bàyyi. man waa Kajoor laa bawal. gis nga dingaraay gi nga dégg. Hmm. ñun ñooy faj tul yi gis nga samay mbokk ay fajkati tul lañu ay luggkati jaan lañu ñun ay kat jaan fi ne bo ma jamon te te te mbay dëgg déet da ngay wor ci fi du ma dee te ngay baña gañ gaañ non dama lay wax rek fi ne nii yëngal nga ba billahi wallahi yëngal nga ba fi dara war a gu fe yëngu nak nek nekku teel na lol waaw dama ni kontaan na yow sama xarit nga lii moo tax ma bëgg di waxtaan ak yow deug la ndax mak da mata bacim rew rew du yalla de waaye da yàgg ak yalla te nak maa la gën a yàkkamti si yeele maam waaw léegi nag <laughs> waaw li ma bëgg moom mooy. Ah. comme wax nga lii. Ah. wax. Ah. bal la. bu xasee génn. Eh. day gaañ. dugalaat ko. du mën a ne. dëgg la comme yaa ma promettre ni ma. sa waay bu takkee. bu ñëwee nga wax ko ma. maa koy wax madame fekk naa la ko. jeex na. billaay wallaay maa koy wax madame. looloo gën a jërëjëf waay bay jërëjëf waay bay jërëjëf waay. jërëjëf yàlla la fi yàlla. jërëjëf waay gis naa nag euh, ngay summi ay jàllaabeek euh, summi rek. may ma ci jàllaabe yi nag. ah da ngaa bëgg jàllaabe da bëgg jàllaabe. waaw dinaa la jox may ma dinaa la jox incha allah. may ma jàllaabe. bay bay baa doo tàng fii dama daanu de damay néew la damay juli baa ngi foofu lan la. man de sama gardien bi man de kii damay ragal ñu fekk ko fi yeew ko sama kër gi. waaye baax na xëy na ñi ñi ñi saa di da nga leen di gis ni gàllaaj bëri xam-xam lañu def boo leen ni laal di yàqu